Bonjour tout le monde, nous sommes en direct sur leralmo.net, Leral TV. Aujourd'hui, c'est vraiment avec euh, un immense plaisir que nous sommes là à Mamamia, Almadi, pour remettre euh, une machine échographie offerte euh, au poste de santé de Kounoun. Donc, euh, tout d'abord, je me présente, je suis Mamiko, je suis euh, l'administratrice et la créatrice du groupe Femmes Chic l'officiel. Je suis avec Monsieur Tcherno, qui euh, euh, est de Kounoun en marche, qui est venu nous solliciter pour acheter une machine échographie pour le poste de Kounoun. Donc normalement, c'était une machine qui coûtait environ 2 900 000. Et euh, c'est par euh, vraiment cet aspect qu'on a ouvert une collecte sur Femme Chic l'officiel afin d'acheter la machine. Donc on a pu collecter euh, 160 et en une journée. Mais automatiquement, j'ai envoyé euh, la collecte à Mamamia qui euh, vraiment nous ont vraiment demandé d'arrêter la collecte parce qu'ils allaient prendre en charge la machine. Ce qu'ils ont fait. Donc euh, finalement de 2 millions 900, on a pu acheter une machine de 5 millions 500 euh, avec euh, une société qui nous l'a vendue hors hors euh, euh, bénéfice avec seulement le prix de la machine et les charges de transport, ils nous ont remis la machine. Donc ça a été vraiment facile. avec la participation de Maman Mia, mais aussi de Kounoun En Marche et des femmes chic. Bon, qu'est-ce qui a motivé cela Comme je l'ai dit, c'est Kounoun En Marche, une association de jeunes qui, qui oui, voilà, de jeunes Sénégalais qui, euh, habitent à Kounoun, qui ont initié ça et qui m'ont contacté via un ami. Et euh, on, a, on, a, discuté décidé vraiment de le faire. Je, le, je, je lui laisse la parole pour qu'il puisse expliquer pourquoi ils ont pris cette initiative-là. Mon nom, c'est Tcherno Ousmane Sow. et je suis le coordonnateur du mouvement Debout Kounoune, qui est un mouvement citoyen qui promeut la citoyenneté participative. C'est-à-dire, on identifie des problèmes et on sollicite les populations pour qu'ils mettent la main à la pâte pour pouvoir résoudre ce problème-là. C'est ainsi qu'on a constaté qu'un village comme Kounoune, qui regorge une population de plus de 15 000 âmes et qui a un poste santé qui n'a pas de matériel, particulièrement qui n'a pas d'appareil échographique, et que les femmes font plus de 5 kilomètres jusqu'à Rufisque pour pouvoir ne serait-ce que faire une, une échographie. Et on s'est dit que ça, c'est un problème que les populations peuvent eux-mêmes régler par des cotisations, des participations volontaires. Ainsi, on a lancé la, la campagne au mois d'août dernier. et on est entré dans le village pour voir les bonnes volontés et nous particulièrement chacun a pris ses 100 francs ses 500 francs ses 1000 francs et on avait collecté une somme de de de 1 million 800 et ainsi un ami nous a mis en rapport avec Mamico et Mamico nous a suggéré de créer ce qu'on appelle Kopargi c'est ainsi qu'on l'a créé et Femme Chic aussi a joué un rôle euh, important en participant Et c'est ainsi qu'on nous a appelés en nous disant que Mamamia a décidé de prendre en charge euh, la, euh, machine. la machine. Donc nous remercions vraiment euh, Femme Chic à travers euh, Mamiko qui a joué un rôle déterminant dans cette euh, collecte-là et remercier aussi euh, Mamamia à travers Samir aussi euh, qui n'a ménagé aucun effort pour euh, euh, satisfaire ce, cette vieille doléance des femmes de, des femmes de, de Kounoun. Grâce au groupe Femmes Chic, nous avons eu l'opportunité euh, d'accompagner les femmes de Kounoun pour l'achat de cette machine. Et euh, nous l'avons fait avec plaisir.

nous espérons aussi vous accompagner dans d'autres activités, je peux dire, sociales. Et nous vous encourageons aussi. Merci à Femme Chic. Voilà, nous sommes très contents de l'activité et vraiment vous remercions mille fois merci. Nous aussi. pour, les, hein? femmes de Kounonou, mm -hmm. qui sont vos, vos mhm. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Euh, euh, au nom du mouvement Debout, Debout Kounonou, mm -hmm. au nom de toute la population de Kounonou. Merci. Nous, nous, ci ci ñun ñi ngeen xool ba ñu doy leen ngeen woo Mamy Ko wax ko ko moom it mu xar si tànk tubéyam def si lu mu mën ak lu mu mënul waaw Mama Mia tamit amuñu seen fay Leral TV en même temps aussi ñoo ngi leen di remercier pour seen présence ak seen jàppale tamit bi ngeen ñuy jàppale ci Femme Chic depuis toujours yéen a ngi fii jeune ku ñun ñoom amuñu waa amuñu lu leen wax daal di leen ñaanal rek li ngeen bëgg yëpp mu mat jigéen ñi ngeen bëgg taxawu yëpp ngeen taxawu leen. Mm-hmm. waaw yàlla def ci am jërëjëf. man maay représenter euh, les les femmes de Kunun Debout man maa jiite jigéen ñi ci Kunun Debout du ñu def daal lu dul di gërëm Mamiko et les femmes ak waa Mama Mia vraiment ku xool appareil bi xam ne appareil bu bees la amuñu daal lu dul lu leen gërëm macha allah merci parce que lii nii collecte bi bañ ko lancé yàgg na yàgg na ça fait naa depuis le mois d'août ñu ko lancé ko ñu woon fexe ba réaliser ko mais yàlla def na ni bi ko waa femme sik yëgee jotale ko mamaam yaa yàlla yombale na ko kon nag amuñu lu dul di leen remercier di leen wax naal jërëjëf merci jërëjëf. maa ngi nuyu képp ku nga xam ne nii yaa ngi fi teew comme ni ko coordonnateur waxee je suis le chargé des finance donc ko xam ne chargé des finances kooku mooy dem wuti xaalis. donc ñu lancé collectif bi depuis mois d'août ma sonn ci lool ñun tamit ñu sonn ci lool. donc mais bi ñu bi ñu ñu mettre en rapport avec Mamico Femship ko suit de loin donc mën nañ ne matul sax un mois affaire bi réalisé wu. donc dañ ko lancé automatiquement solution am et solution bi dafa am ku ko yombal ki ko yombal mooy mamiko ak Femship donc maamam yaa ñëwaat aussi teg ci loxo donc mënuñu lu dul dire merci. di ñaan entreprise bi nga xam ne ni Mama Mia yàlla yokk ko yàlla yóbbal Samir maanaam fu kawee njottam et on est content daal de toute façon parce que kuy def lu baax donc mënoo ko wax lu dul merci ñaanal ko yàlla et yàlla aussi gis na donc on dit merci à Mamiko qui fait aussi toujours di social même nee na parfois su du ko fësal mais comme on est à Mama Mia qui une entreprise qui a besoin aussi de visibilité même si le le le PDG l'a fait ngir yàlla donc ñun ñu gis ne yoon la aussi ñu fësal ko àdduna teg ci seen bët. waaw àdduna teg ci seen bët xam ne Mama Mia mu ngi def leneen lu yeneen entreprise yi deful. donc merci à tout le monde merci à Mama et merci surtout à Femme Chic et Mamico. xanaa di remercier rek mm, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette collecte donc tamit loo gis rek dafa am ñooy facilitateur mm-hmm. te donc Mamico am na si part de responsabilité. parce que ñun ba nga ko lancé yàgg na demoon nañ ba naan réunion nañ dañu arrêté collectif bi wala dañuy continuer parce que c' était trop difficile mais tamit ah ba l'instant que ñu di lancé plateforme ngeen jot si rek vous avez facilité la chose mais tamit comme Mbacke ni nga ko waxee rek lu baax dañ koy siiwal mais tamit lu bon dañ koy nëbb tamit ñii dañ PDG daf ko def ngir yàlla mais tamit lu baax la mën nañ ko siiwal essentiel mooy ñu dem ñu ngi ñaan mu dem ba am kunun benn filiale bu mel nii ba ñun ñu permettre ñu participer à activité loolu la ñuy ñaan di remercier tous ceux qui ont participé de loin de près ou de loin surtout waa Kouroune surtout le coordonnateur Mbacke finance moom mi nga xam ne moo jiite woon liggéey bi donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan collaboration bi mu gën a continuer gën a fructueuse yeneen toppaat ci daal ñu wax Sénégal moom ku nekk dafa nga dëkk mën nga fa defar dara il suffit d'avoir la volonté wax ñun au début dañ ne woon nañ ko commencé rek xamuñu fu muy sottee mais nañ commencé initiative ngay teg doo xam kan mu koy mottali doo xam kan moo koy réaliser amaana nag ñun mën nañu commencé mais résultat bi du na mën na fa bañ a fekk mën na fa bañ a fekk coordonnateur mais l'essentiel nañu entamé après buy jariñ population Koungheul lay jariñ te l'essentiel mooy ça au delà de ça di yi di ñëw waa Koungheul dinañ si gis seen bénéfice au delà de ñun suñu propre intérêt personnel donc loolu lañ doon gën a bàyyiloo xel rek di leen ñaanal daal liggéey bi yàlla na yàlla barkeel gën a barke allah. ñu ngi leen di remercier di remercier waa Sénégal tamit ñi nga xam ne ñuy seetaan parce que tout le monde ñëpp xam nañ ni fii hôpital boo dugg poste de santé boo dugg boo fayul dix mille francs quinze mille francs doo am échographie échographie c'est quinze mille francs wala vingt mille francs ou vingt cinq mille francs bu dee machine nag boo xam ni machine yu bees yi la ànd a trois sondes boo amul trente mille trente cinq mille francs duñ la defal échographie parce que bii moom mooy dangay gis lépp ci biir donc vraiment mu nekk loo xam ne dina mën a jàppale képp ku dëkk Kounoune mais aussi képp koo xam ne jigéen nga dëkk aux alentours de Kounoune di nga fa mën a def échographie avec un moindre prix ndax on dirait on dira pas que là-bas l'échographie sera gratuite mm. parce que tam ñëpp xam nañ ni dañu dinañ soxla ay gel mm. dañ soxla ay matériel yoo xam ni consommable yoo xam ni ils vont devoir l'acheter tout le temps mais au lieu que ngeen di fay ay yenn prix da ngeen am benn prix bu ndaw boo xam ne ngeen ko mën a fay pour def seen échographie maa ngi remercier waa Sénégal remercier waa Femme maa ngi remercier aussi waa Kunun Debout remercier waa Mama Mia bu baax a baax ci li nga xam ni aussi waa Leral TV Leral point net bi nga xam ni ñu ñoo ñëw taxawuñu tamit nekk benn site d'information ak télévision boo xam ne bu mucc ayib di leen remercier pour seen taxawaay euh, nee naa leen jigéen jar na lu nekk mais ànd di collaborer pour le bien-être de la femme c'est encore mieux je vous remercie